on peut dire que depuis 78 nous mais gisuñu apporté le monde, mais à l'heure actuelle bu le régime président Macky Sall on peut dire que si nous avons ne dinañ 6000 mailles on fait que applaudir si fait na un inconvénient manque de ressources Il faut fi tay da nga daan def une demi-journée am produit mais à l'heure actuelle di nga def 48 heures ba 72 heures do am produit lepp bataille la bon buñu buñu ko 6 000 nous avons 12 000 maïs dinañu arranger lool di ñaan yalla yalla si yalla def mais di rek comme 2 milliards yi nga xamante Nous ni moom la décentraliser jox ko acteur de la peste.

dinañ si jot à bras ouvert dinañ am beneen yokkute bu mu ñuy yokk dolliwaat.